Je vais nuyu ñi ñëpp kenn ku di jiital ci bi directeur ci ci nekk lay jël ci ak ci sa man présentement may wax damay damay commencer d'abord par wax man dégloo man maa ngi tudd Papa Demba Ndiaye dëkk fii Medina Sabakh nekk jàngalekat man Papa Demba Ndiaye pour la première fois waxuma la mitingu Benno Bokk Yaakaar waaye réunion Benno Bokk Yaakaar mosuma ci dem mosuma romb réunion Benno Bokk Yaakaar déglu la ñu wax mosuma dem ci ndaje Benno Bokk Yaakaar mosul am je n'ai jamais ci benn bu Benno Bokk Yaakaar woote mosuma leen di déglu mosuma koy teewee mosuma leen di seetaan tey fii ma toog bu ma fi ñëwee Ablaye Diatta mii moo ma fi indi Ablaye Diatta moo ma woo téléphone wax ak man bu dul moom en tout cas même président Macky man mënu indi fii bu fi teewoon tey bu ma wooloo du ma ñëw pour être clair mais Ablaye c'est mon ami suma xarit la suma la suma boole lu nous lu sérieux lu boole comme il sait que c'est trop compliqué pour le faire mais je le fais grâce à lui Je fini. déclaration du ma Samba du ma Demba du ma Paate je soutiens Ablaye Diatta parce qu'il m'a tendu la main te lu mu ma laaj dinaa ko ko defal donc pour ceci maa ngi wax ne Ablaye Diatta fekk si naa dina ko dina jàppale はい。